Ndeye Marieme Ndiaye dalee nag jàmm suñu may nit ñi dinañu wàccaat ci mbedd mi ngir daal di naq diñ ci gis pepp courant loolu sax moom moo taxoon ba démb ñu ngi doon amal ay ñaxtu wante nag ñoom nee ñu loolu du lenn ndaxte su fekkente ne daal Senelec moom fexewul ba courant bi di ñëwee ci ni mu waree dinañu wàccaat ci mbedd mi jóglekaay bi di la Pays au quotidien ne sax askan ba dëkkee ca caaro yi ñoom juróom benn fan dong de la ñu may waa Senelec ngir ñu dakkal nag seen xuy xamaj gi nga xam ne moom la ñu nekkee nee nañu daal su fekkente ne nag li ni mel amul de dinañu ci mbedd mi daal di yëngu-yëngal coglekaay bii di le pays au quotidien ne nag ñii nga xam ne ñu ñoo dëkkee ca banlieue ba ña ngay woo Macky Sall ngir mu daal di jël ay matuwaayam Macky Sall moomu de coglekaay bii di li xew mi ngi ñuy xamal ne moom de sa njël benn la jóg nag ngir fexee ba benn jafe-jafe du am ca assemblée nationale loo sama moo tax ba yónni woon na nag barke fa li nga xam ne nag moom mooy ca pencum ndaw réew mi kii nga xam ne moom mooy Mbaye Ndiaye ak tamit Mansour Faye mi nekk mag wala rakk ci ki nga xam ne moom mooy jabaram bi di Marième Faye nee nañu nag ñaar ñu la yónni ngir ñu waxtaan ak député am wax leen nag ne fu mu nekk ni daal bu ñu ŋàññ nag kii di Moustapha Niass nañu fexe ma daal di koy voter mu nekk président assemblée nationale te it bureau bi ni nga xam ne nag la ñu ko bëggee daal noonu ñu ko mujjee amalee coglekaay bi moom mooy ci assemblée nationale coglekaay bi di la populaire xam ne dañuy yëngatu ci wàllu mine leer nañu nag kërub liggéeykaay googu daal fas ni nag yóbbu Sénégal ci kanamu yoon ndaxte nag fisc daal ma ngi koy laaj juróomi téeméeri millions yoo xam ne daf kaa nar a joxe te nee ñu nag am na yeneen këru liggéeykaay yoo xam ne daal suñu may maytuwulee ñu def nag comme waa ciment du Sahel jóglekaay bii di enquête mi ngi ñi xamal ne nguurub Sénégal buggutuñoo gis nag ay dëkkuwaay ci li nga xam ne nag moom moo jege aéroport bi loolu sax moom moo tax ba képp koo xam ne nag mayoon nañu la suuf daal dinañ koy nanguwaat yëglekaay bii di enquête mi ngi ñuy xamal ne ay sëriñ ñu nekkoon jëwriñ ak tamit ay jëwriñ yu bees tàq sax bokk na ñi nga xam ne nag maître Abdoulaye Wade da leen mayoon ay terrain ci wetu aéroport bi ñeenti gendarme ngi nii nag nee nañu leen ràpp ci biir kaso ndaxte dañu leen di tuumaal ne ñoom ñoo faat bakkenu ñaari manifestant yoo xam ne daal dañ doon amal ay manifestation fële nga xam ne moom mooy ca Podor ngir ngañ nag candidature maître Abdoulaye Wade jóglekaay bi di Le Quotidien ne mën nañ ci yokk tamit yeneen ñaari gendarme yoo xam ne nag jàpp nañu leen ci faatu bakken Malick Ba ma dëkkoon fa li nga xam ne moom mooy ca Sangalkam loolu nag moom mooy seexndeel ne juróom benn gendarme fu mu nekk ni nag ñu ngi ci biir euh, kaso bi di laas mi ngi ñi xamal ne am na kenn koo xam ne moom génne woon fa li nga xam ne moom mooy ca Medinatul Salaam laas di ñëwaat nag ci wàllu Cheikh Béthio Thioune mi nga xam ne yóbbu woon nañu ko ca Medinatul Salaam génn ñu dellu si waat daal ci ñaawteef googu nañu ko amee woon euh, coglekaay bi di laas nag ñu xamal kenn yaakaaru ko woon ñu xamalit na dañ ci sukkandiku dugg ngir wax nag ne seen client boobu deful lenn rax ci dolli Cheikh Béthio Thioune moomu dee coglekaay bi di laas mi ngi ñuy xamal ne ba ñu defee reconstitution yi ba pare ba muy ñibbi nag juróom-ñaari jabaram yëpp ay ki doomam dañoo rang daal di koy gunge ak ay xasaayid coglekaay bi di réew mi mi ngi ñuy xamal tey jii ne ki nga xam ne nag moom mooy Salif Sadio te nekk ca MFDC moom nee na nag may na daal gouvernement wu Macky Sall ñaari weer yoo xam ne nag faw ñu daal di ci waxtaan ak moom ngir xool ba xam daal naka la mën a fexe fexee ba juróom-ñaari soldaa yi ñu jàpp nag ñu mën leen a bàyyi coglikaay bi di réew mi quotidien ne loolu nag moom mooy firndeel ne kii di Salif Sadio moom de bëgg na nag waxtaan ak nguurub Sénégal wante ci biir coglikaay bi di l'office Serigne Abdoulatif Diène moom la mu xamal Macky Sall moom mooy daal ne warul waxtaan ak ñoom rax ci dolli sax benn dërëm nag waratukaa jébbal ñi di woy fupp yi sëriñ Serigne Abdoulatif Diène moom ab ne la moom it moom moo jiite parti bi nga xam ne nag ci biir coglikaay bi di l'office moom mooy daal ne Macky Sall warul jox benn dërëm ñi nga xam ne nag ñoom ñooy rebelle ya nekk ca Casamance jeexle ko ak wàllu football ak cuglekaay bii di stade ma ngay ñëwaat nag ci jongante bi nar am tey si ngoon ci diggante réewum Sénégal ak Émirats arabes unis cuglekaay bii di stade ne Afrique yëpp nag ñu ngi yaakaar ci suñu gaynde yi ñoom nag dañoo war a am ndam ngir war a mën a qualifier ci quart de finale yi li ma nekkoon mbokk dulukat yi li gën a fës ci biir kay ñooy ni ñaanaan njeextalu asalaamaaleykum mbokk déglukatu rajo Sud FM ñu ngi leen di dalal jàmm ah, ci biir xibaar yu jagleel wàllu weeru koor gi ci weeru koor googu nag dañ cee nemmeeku ni